mbokk yi nuyu leen dalal leen jaajëfal leen ñu ngi fi fi nga xamante si ni euh, mooy suñu alaaji football field alaap Moussa indi ñu fi mu taxawal juróomi combat yi am solo grand bi mu dox si diggante Boy la ak ki nga xamante ne mooy Jordan spécial combat bi mu dox si diggante Eumeu Sène ak France bu Numba Tour mu nekk ay combat yoo xam ne combat yi am solo wax naa leen mbokk ngeen topp ñu lépp loo xam ne rek dërës bi daan leen jox si kàddu gi seen xarit seen mbokk Ousmane Ndaw bëgg tiddi euh, si caméra bi Ousmane kon mbokk yi wax naa leen di seetaan appareil di subscribe di bës cloche bi di abonné lu ñu dëggale mu ñu seen téléphone mu nekk lu am solo ñàkk seetaan seen appareil wóorul jaajëf waaye Balla bi ngi yëngal Faya moo war a ñëw ak ki nga xamante ni mooy Diass mi ngi def uh, ay débat débam ànd ak mu nekk lu am solo ala pom sa muy seen di ki nga xamante ni mooy sëñ alaaji jal daan mu nekk lu am solo ñu ngi fi fi nga xamante ni mooy sëñ alaaji ala pom sa ñu ngi fi ngeen ànd seeg uh, bëgg si kàddu gi ci caméra bi Ousmane Diokh doo ngeen topp ñu rek mbokk yi incha allah dinañ la fi jëm ah. amat tànk Boy Baol moo doon tuus tànk la tànk lef tànk raayit xaleñ loo diggante Faye ak Gass attention Modou Lo si wax combat bu neex combat bu doy waar combat bu am solo ndaw gu yàgg a toll fi mu toll la wala boog ndaw gu nekk di prouver si yoonam ak mag bi yàgg a toog fi mu toll tey mën nañu wax ne combat yërmande la ci gaz waaye kii di faaya bu passé si exemple bi nii buntu làmbam dana ubbeeku ndax ndaw guy nekk si yoonu làmb gu am solo la ayca dóor na moom faaya. am solo Modou Lo combat bi gaz su ko bëgg a jeex faamu enquête mën a mën a jeexal combat bi. waaw boo bàyyee xel ki nga xam ne moom mooy gaz yëfu mag la indi tey taxaw déglu faaya ba xam li indi. dog cee bëreek moom ndax boo bàyyi xel dafa déglu faaya faaya di dirisé faaya mooy cokkaas mooy dox ci kaw ki nga xamante ne moom mooy gaas waaye li leer ba leer moom mooy faaya na bàyyi xel ndax ki mu ko seqal du cuune bërekat la te amaana wàllum xeex wane na si bu dee moom gaas gis nga dóor bi mu dóor am na solo nañ rapporté combat bi. am na solo diggante gaas kooku muy Modou xarañ loo mu nekk lu am solo Modou Lo la nga wax waaw ay ndaanaan lañu di leen jaajëfal surtout caméraman bi Coor maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. nee naa la ci réew mi fii li mu jëlul lu nekk baaxul di ko jaajëfal di ko ñaanal suñu borom yokk ko lool nag wax dëgg yàlla ndax mu ngi def lu am solo surtout làmb di ko jaajëfal. est-ce que gas li may xeex xeex ba baaxul xeex ba baaxul moom gas xeex ba baaxul. Faye dóor na ayca mooy dirigé xeex ba faya a ngi koy accéléré ayca Ousmane ay la la la Faye Faye gas dana jeex. hee Faye moo nekk dirigé reportel combat bi. Fayal moo nekk di diriger kooku muy Modou Lo war a dëgg Faye Gass combat la ku daan wéet Faye ak Gass Faye sa ndam la toog Gass dafa la toog Gass moom mu naan dafa tegale Gass dafa tegale ñetti ndam ñetti dafa la tegale moo moom dafa tegale ay victoire mu nekk ko ba am solo Ousmane Thiaw diri bëgg si caméra bi wax wax gaay na wax gaay daal ñu ne daal fi yàqu dàq na loolu gaay wax diggante gaz ak ki nga xamante ni mooy faya diggante gaz ak faya attention gaz ak faya waaye Modou Lo lamb yi tar na Modou Lo lamb yi tar na de. lamb yi attention oh, ñu xool ñu eh, mel ni Modou Lo. lu xew nañ déglu nañ déglu waaye doy na waar daal Modou doy na waar de am na lu xew. waaye delu arbitre ñi delu arbitre ñi delu daa jaxasoo na jaxasoo ñu déglu arbitre arbitre mooy maître de terrain moo loolu na ngaa déglu arbitre mu nekk lu ñu déglu arbitre waaye ndox la arbitre moo mérite de terrain arbitre moo jël décision ñu dellu arbitre waaw arbitre mën na ñu bëriwaat arbitre mën na bëriwaat pour mu waaw moom la fanaan lii li gën arbitre bi tey def na loo xam ne nangu naa ko ndax ku nekk ngi foog ne sa mbër daan amateur ku nekk ngi foog ne diwa daan waaye li leer ba leer mooy lii daal moo gën a wóor buñ si te gëmoon mom mo moo bu jigen na bind appel ndax loolu la ko yon may faya ak gas gas seen ndeyjoor faya sen càmmooñ gas ngembul xonkoli faya faaya ngembul weex li tey la tatine julay suñ ci alaaji football field ak ala promotion faya duggaat na dem nañu roof faya gas gunek tali ning ak guneeg yundum gi tay nee naa la du yomb lamb fa la agré way ku daanu ku ne rus Ousmane waxal ci ñaari mbeuri wax am na solo diggante gas ak faya man na ne si bi dafa tax sa am ñu waat nday faar tër alias titi maa lay bëgg a baax baax kooku sama ma la Mouhamed Thiam Thiam Babel dama Thiam kooku si culture ma maa ko di jaajëfal képp koo xam ne rek yamay sama ñu lay jaajëfal baax a baax mu nekk am solo diggante gas ak faya ñoom ñaar ni ngeen dégg na kal caxabal eh, kal kal ñu xool ñu xool ñu xool ñu xool attention penalty attention oh! ñaar bëri neen ñaar xale bëri na moo loo ñaari xale bëri neen kal arbitre la xaw arbitre la xaw arbitre arbitre la xaw waaw Faye am na ndam Gaz am na ndam Gaz am na victoire Molo Gaz am na victoire Gaz am na victoire Gaz Molo su ma juumut def na lum na gëj a def moom mooy prouvé wane na jom ci làmb gëj na wane lii tey li nga xamante ni tey moom moom la def nii tey muy daanu gëj nañ koy gis ci moom te tey képp ku bàyyi xel combat bi nii di nga xam ne moom demaratul ndax combat bi moo ko bëree xale la wane na jom wane na xale la wane na mu ngi ci yoonam man gëmuma ne tey defet lam naa gëm ne victoire lam li bay waaram li ci kanam mu gëm ne tey lépp lum ñàkkoon da koy dabiwaat te xam ne xale la buy doog a dugg ci làmb bu dara. waaye mu la tuuti suñu bàyyi xel gas tamit am na changement de. gas am na changement ndax nag wax dëgg yàlla buñ bàyyi xel dafa bokk ci xale bokk ci làmb te ñu demoon ba benn instant ñu mel ni gas dafa xala des gannaaw ci làmb ci ay naataangoom tey moo tax mu jël ay matuwaayam ñëw na bëree na bëre bi xeex na dirigé na wan xale bi na ko yóbbooloo ma dara buñ bàyyi xel indi na état bu baax tey daal li li leer ba leer mooy à la promotion ñu ngi koy gàcci ngalamal waaye ñaari xale yëpp ñu ngi leen di gàcci ngalamal waaye dañ leen di gàcci ngalamal ndax ay ndaanaan lañu Ousmane Senghor sama caméraman kenn du moom Ousmane Thior kon kenn moom ñoo ngi koy jaajëfal baax a baax dama ko dama dama ko ñeewantal ndax xam nga lu tax daf maa daf maa bëgg te man ku ma bëgg ma yëg di ko ñaan nag ne ko bu ma topp ndax téléphone sama problème la léegoo léeg barke alxuraan day tëg kool ma ne ma dama laa gëj a dégg namm la moo tax ma lay xool ci li nga nekk te wax dëgg yàlla moom mooy mag maay xale loolu man la waroon di ko ñaanal njabootam suñu borom teg si loxo yàlla rafetal carrière yàlla guddal fanam may ko wér ak wérle jaajëfal ñu fa nekk yëpp yàlla defal leen jàmm yóbbu télé bi mu doon télé bu gën a rëy ci réew mi. jaajëf Boy Balla na ba pare gis nga état am jot mi dem pour tuus. Boy Balla mi ma gis. mu ngi wax 100% dara jotu ko. bu moo war a ñëw tuus. nañ xaar ci kanam ba xam fan la wane. xaar am solo kon. dañu leen a seeraan tuus ki nga xamante ne mooy jot daan moo lópp yaa mi ngi noonu de sama xarit. Pafodé Pafodé fa ne lu leer ba leer mooy lu doy waar a taxaw tey lu doy waar. am na solo tobaata ñu dem si tuuti ki nga xamante ne. aduna yëpp teew ñu gis suñu doomi ndey ñu tuddee ko drapeau euh, alaaji euh, mi nga xam rek moy, euh, bés bu mag bi nga xam ne jox nañ ko ko tey mooy Amadou Sané drapeau biñ ko tuddee mbégte ak kontaante la si ñu xool làmbi tey ambiance am na booy Ba la jógee yëngal réew mi eh, ñu gis ki nga xam ne mooy Jordan di ñëw yaa ngi dégg piano yeeg lii rek mooy làmb te neex na benn ko. tey dafa sa xol na lool lool lool bëgg tit ma xol sedd na am naa mbégte kontaan moom si làmb waaw tey si làmb soo ji nga Jordan Boy Balla loo may wax si eh, Boy Balla fit confidence. loolu la indi si fit ak confidence indi na fit indi na confidence. am na solo waaw jërëjëf. booy fay waaw sant yàlla rek xam nga ñun lamba su amee rek dañ dee kontaan. so ñu ngee jaajëfal ñëpp jaajëfal promoteur yi ak mbër yoo xam ne tamit ñu ngi fee bëree di jaajëfal waa Arlu lamba lamba moom su sootee pour ñun ñëpp la so ñu ngi leen a jaajëfal di expect ëllëg ëllëg mooy laas. lamba boo xam si season bi pour ñu ne season bi tëj na di jaajëfal ñëpp di la jaajëfal yow tamit Bouga Titi bu baax a jibal nuyu naa la. ah fay naa la. tey la kontaan. non sant yàlla rek ñu ngi kontaan bu baax si combat yi wax dëgg yàlla lamb ji moom neex na bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla non ñu ngi ñaan dawe rek ñu gën moytu comme luy yàqalaal comme daal ñëw si lamb di yàqal lamb ji ak yooyu noonu nañ ko bàyyi. parce que lamb tey gisee nga xam ne lii ñëwuñ pour yaaxa pour defar moo tax ñuy organise làmb ji ku si yàlla may ndam nga xam ne yàlla may na la ku si yàlla xeñ nga xam ne tey xeñ na la lii rek la am pour adversaire lu war a teg a tegaaral ah tegg tegaaral la ma ko waral non non non ñu tegg a bi nekk ni xale yi ñoom lañ bàyyi ñu ngee tëgg a làmba waaw léegi nuyu naa la waaw ànd ak promoteur bi ñëw nga ko di wax rek ne lii sport rek moo ko man lamb moo ko man kon nekk na loo xam ne lu am solo ci réew mi di yang a ñaax ndaw ñi ñu gën a ak yar ak dal ak discipline parce que tey kilifa bëri teew nañ fi te lii dëgg dëgg dëgg kilifa bu ñuy ñëw dañuy am yaakaar ci ndaw yi am yaakaar ci làmb kon lu def lu dul am kontaan am mbégte tey di ñaan yàlla lu ñu ñëwee bisi bisimilah ñu dem ci rabbil alamin di ñaanal ñëpp jàmm jadi bëgg a tiddi soo la ngay wax télé bi télé bi télé bu am solo ibra TV muy suma télé du télé boo xam ne guléet ñoom ngi koy ñaanal rek mu dem ba nekk télé national international jërëjëf jaajëf kooku mooy Lune la nga xam ne waaw bu ko diri sant yàlla ral leen ko jàppee waaw ndax yàlla moom mooy dogal moo ñu sàkk si mbëri kenn ndegam defur ko mu wàccee xewal ndox xewal la kon ko sant yàlla bu baax métti na nag métti na si man métti na si mbëri waaw soo léegi lan moo nekk solution bi waxtaan wala waxtaan non solution am na ndax waxtaan leen mbëri ba am na lu nangutoo pour ñu yokkal leen mooy lan pour ñu la mbëri doon ñoo dise waaye waxtaanee xam nga mbëri ak promoteur waaw ndax mbër mënut a dem sans promoteur promoteur mënut a dem sans mbër promoteur su yowoon xaalis amul mbër bu ko jox du tëgg làmb mbër bi su nekkoon du bëre amul ko ko fay du bëree moo tax ñoom ñaar kenn mënut a dem bàyyi sa moo tax waxtaan moo jaar seen dool war a seen diggante fédération bi tamit def si lu rafet waaw taxawoo wane daal axu làmb seen seen njaboot la ba déggoon nañ si kàddu daal incha allah rabi fas yéene si suuf bu ubbee ñu tëgg ko incha allah rabi. comme nee na yéen a yéen danañ liggéey bi ñëw ni soobee yàlla ak yonent bi loolu moom maa la ko dégg bëgg a tiitee bi ñëw na moom dinañ liggéey incha allah non non non moo xew opérative bi kay moom si kanam waaw di wax na lamb ji tamit ñu dugg si bisimilah rahmaanam jeexal si alhamdulilah di baalami di ñaan ala lépp lu mu si dugal mu am lu ëpp lu ëpp loolu si barke Mamet gars yi bëree si jàmm jeex si jàmm ku gagné moo xam ne loolu yàlla dogal ku win tamit nga xam ne tamit yàlla moo doon maye moo la xeeñ wasalaam jaajëf doom ñu dem waaw ah, gis ah, na ko. yaa si état gis na lepp amna na am nga changement de. yo gis nga lepp yàgg nga jël doon ñeex de. gis na lepp sa bu suba la da ngay dox wala da ngay xaar. xaw ma sax lu may def. Ah? xaw ma sax. xaw ma non non. ah xaw ma sax. la ngay wax Braya TV. ah afta. afta afta dinañ wax. afta boy ba mën afta ku may. yo yow nii naa la. mala fay. yaa ngi jàmm. yaa yo keng waaw. yow kenn kenn nga fi yàlla ji taw loolu la def. def rek du du du promoteur bi yàlla si mbooloo moo def te ñu aw laam yoo xam ne laa yàlla suñu borom bi la lu waroon am la rek soo soo yàpp mu def fa la uh, mujjee. waaw ñu wataan waxtaan nag waaw ñu wataan waxtaan bu baax ndax am na yaakaar naa dinañ jubóo. ci ba amagul. waaw dinañ jubóo incha allah. fa mu def jël laax du mën a xamul dégg nga. non dinañ jubóo. ah waaw dinañ jubóo incha allah. jaajëf ok. jaratu daxal fay nañ la bëgg. ñu seet spécial combat bi diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ne mooy France Eumeu Sène bu num Faras yëndu at ba suuf la na Faras toj nañ yàq ci arrière Faras toj nañ yàq ci génn am na seen man fas yi jóg leen. am na seen Faras si spécial combat bi. mu nekk lu am solo. ñoom ñaar seen ngéema dafa xaw niroo Franc am na benn wóor ne avertissement ndax dafa génn yéen ñiy seetaan Eumeu Sène ndeyjoor Franc càmmooy am na lu xew am na lu xew karaam mi lu neex Eumeu Sène ak ki nga xamante si nii mooy France France number two France yundum Eumeu Sène bundum am na ñaari avertissement arbitre bi souffle na Eumeu Sène na Eumeu Sène na Eumeu Sène daan mu rëbb combat bu combat ba gaaw na jeex na jeex na. Alpha lan la bëree nii yow balaa combat bi di start koy war a bëree ñaari woone yow looy yàkkamti looy songa ba pare mbur kay soo songa da nga koo ci kaw wala nga songee ko ci digga waaye naka ko ko songee ci suufi tànka loolu foo ko defee lim la mën def rek mooy suruxal la jeex tak te noonu la fa demee combat bi jeex Eumeu Sène daal dëgg-dëgg ndaanaan la waaye tey dafa bëre bëre cuune dëgg dëgg dëgg moom mooy mag booy baa doon dem di uti li mu war a def mooy booy bi am na ñaari woon dafa war noo téye bëre bi jéem a tag taaw seetaan booy bi lan la moo indi waaye lii daal dëgg dëgg doy na waar torop. gis nga booy baa la gis nga Jordan ñoom ñaar euh, ka nga yàq ma gën a pare. non ñoom ñaar yëpp li ma fi gis mooy pare ne ñoom ñaar ñëpp ñu ngi si biir euh, ñu ngi si biir combat bi te wax dëgg fa ne yàlla soo leen gisee nga xool leen ak seen mystique ak ni ñu demee mënuloo jàpp mënuloo wax ne mystique jàpp na kenn ndax booy bala tuus na lam daan tuus teel a noppale ko Jordan tuus na lam daan tuus teel a noppaleku te tey soo ko seetloo Jordan kampam tey dafa gën a yokku ñoo xamante ne daawuñ gis ñuy fës seen combat yëpp leen gis ñu fës combat bi booy baala daanaka ñu daan àndal rek la àndal ñu daan àndal di am ay ndam di am ay defet ñoom la àndal kon tey combat bi yaakaar naa ne ñoom ñaar rek li des nag mooy ñu simeeku ci biir géew gi ñu xool leen xool seen état mooy seen forme seet lan leen doon liggéey waaye bu uteeg loolu seen mbiri débat seen tuusa ñoom ñëpp a ngi si foofu. waaw Alpha tey dafa mel ni neex na de. non Kosoro tey neex na car macha am na solo trop trop la promotion def na fa lu rëy def na fa lu am solo Lambi Gambie loolu la soxla fi mu dem rek Lambi Gambie mun a gis boppam ci organisation ci lépp macha allah am na solo. la ngay wax Takusaan Lamb opérative yi. non Takusaan Lamb opérative yi am na solo rawatina yi ngeen daan génnee bi foo yoo xamante ne làmb yi daan am la dañu fàttali démba loolu lu ama am solo la kon opérative yi ñu leen a jaajëfal bu baax a te ñun waa Dabal Aar ji suñ partenaires yu baax ngeen suñ partenaires yu baax ngeen te lu am solo la kon ñu see kontaane di leen ñaanal rek affaire yi gën a yaatu incha allah rabbi bem aaga bem gën a kawe seen njorta si daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. am na solo jaajëf. waaw ñu ngi lay nuyu di nayu waaye axlu làmb yëpp di sant yàlla di julli ci yonentam Moustapha sant sunu wayjur di ñaanal sunu wayjur di ñaanal réew mi yàlla na yàlla def ci jàmm. yaakaar naa bi ñu jullee ba léegi jàkkaarloo wuñ waaye di wax rek yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñi demoon màkk yàlla na yàlla nangu seeni aj yàlla dimbale ñu kàttanal ñu def ci réew mi jàmm ñaanal sunu wasila Mouhamadou Fadul Seck sin borom yàggal ko wéral ko barke borom Touba ñu ngi nuyu transport yu neen yëpp Omar Cissé ba ci kaw ba man mi ci gën a xeebu ñu ngi nuyu waaye président Jarga Fall waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu Ousmane ñu ngi lay nuyu di am kontaan ak mbégte ci yow di nuyu sa caméraman di ko ñaanal yàlla di ko na ko moom dugatuñu ay xarit ay mbokk leen waaw ñu ngi lay nuyu ñëpp di ñaanal lu làmb yëpp di wax ne ñun bi ñu jàkkaarloo yéen dañuy kontaan yëg-yëg lañuy am. lu war a yëg-yëg a sa waaw yàlla mooy seen na ko neex mu def ko la ko neex loolu yàlla du ci man du ci yow yàlla la dañ koy dañuy wax rek yàlla bu seytaan am wàllu foofu. loolu du man du yow yàlla la waaw amuma kenn xaar ma yàlla nag waaye yàlla mooy seen nit rek def ci moom lii nit yi gis nit rek am ci moom cofee loolu yàllaa ko def. fii fii du sa place ah? man maa ñii ñëpp samay doomi dey leen xoyantaan a ngi fii kii amat seen xam nga ko man ak moom depuis ñu doon xale ñooy ànd kunku jàng kooku fu ma ko fekk rek foofu laay toog moom it fu ma fekk foofu laay toog tey ñoo choisir pour toog fii rek du dara waaw. gannaaw gannaaw gannaaw boo euh, boo ñaa saako jor guma si lu waaw ñi ngi liggéey ñi ngi liggéey ci làmb ñi ngi liggéey lu rëy ci làmb loo xam ne nii ku ne xam na ne làmb dafa am nu mu baaxoo waaye làmb yi buy tëj am na nu mu baaxoo waaye buy ubbiir am na nu mu baaxoo waaye ñu ngi ciy dox dox boo xam ne nii bëgg nañu génne yeneen combat yoo xam ne incha allah biñ ko tegee askan bi danañ ci bàyyi xel. ñi liggéey ci pour nekk sisin bu soobee yàlla ñu ngi ci kawam waaw. am na solo Boy waaw doon na combat boo xam ne euh, combat bu doy waar la euh, xale la ak mag mu doon Jordan yàggal laaj kii nga xam ne nii mooy Boy Baol la. Boy Baol la nekkoon ci guddi yoo xamante ni macha allah lamb woo na Boy Baol rek présenté na boppam waaye doon na combat boo xam ne man dama ko combat sàccante laa ko tuddee waaw combat sàccante rek laa ko tuddee Ousmane. waaw am na solo. jaajëf jaajëf coach nuyu naa la. waaw fay naa la bëgg a. yaa ngi cool sant bu baax. soo gis nga Jordan gis nga Boy Ball. waaw waaw jox naa leen. naka nga jël sa état Jordan liggéey na Boy Ball liggéey na di ñaanal Boy Ball ndam rek ci kaw Jordan ñoom ñaan ñëpp samay fils lañu mais yow xam nga ma man fan laa ne eh, ragal féete day xañ a wërsëg Boy Ball maa moom ñoo doon liggéey xam naa li mu indi. Gisna Jordan machallah combat bu neex lay wara doon waaye ma ngi ñaan yalla Boy Balla am ndam ci kaw Jordan jere am ay sama guy gi. rek inshallah no enu mako ma ca sukur wala wala wala. waye di ñaanal guuy gi senegal su amaatee beneen combat yalla may ko ndam. Ah, yow sama eh bul wax lolu de no num deme rek la yalla baxna waaw waaw wa Jordan ko ñaanal may ko ndam bu reey yalla ni inshallah allah la nga wax ah. la ngay wax télé bi. ci kaw si kanam rek incha allah yàlla baax na. Biryaki. Kara Kara li mu warul. wala da ngaa sonn. non non man. Ah. Jordan moom bi indi. Jordan moom fi indi. waaw am nga sama baax na. ah yàlla baax na. yàlla baax na. Mathia Sukur Sukur. yàlla mën na lu ah? ma ne yàlla mën na na lu ne. ndeysaan na solo yow yow ku laa ñaar ñëpp sama mbër leen. ñoom ñaar ñoom ñaar ñu waaw mais Boy Baal Boy Baal ji nga jot a kan moo gën a pare ñoom ñaar. non Boy Baal laa bu daan nag. waaw Boy Baal laa bu daan. because moo gën a waaw Boy Baal la la. waaye Jordan tamit champion la tamit.

waaw léegi day mu leer waaw jaajëf tam jaajëf ah yàlla bu baax a baax waaw alhamdulilah ñu ngi sant lu waral lu waral yor bi yor bi la moo ko waral waaw Ousmane bàyyi li ma tooñ waay <laughs> ah, yow yaa seetlu loolu rek moo da nga gis ko waaye xam naa ne jaam bu nekk moom yar lu la war la moom waaw doomu adama moom yar mooy lu njëkk a lu ñu war a def ci moom waaye na yow yaa ko seetlu ci man rek war a càmba

namoon nañ ko torop moo tax tey lu mu xat ma ne fu ma jaar dinaa ñëw daw si ñëw seetaan at least donte leet naa nag waaye it wax dëgg ne yàlla làmba ji ah, neex na torop ndax ku xool entourage bi rek di xam ne làmba ji neex na bu baax a baax a baax waaw. am na solo mën naa ne keroog dimanche euh, doole làmb yi na woote woon waaye den den gis yàlla ji dafa taw combat yi yeggut loolu lu am lan la si wax. waaw loolu moom ah, luñ luñ luñ la balaa moo xew. mooy luwaa daf ko koo balaa tey mooy lu ñëwoon natural causes moy lu wu ci lu joge ci yalla lu joge ci yalla na jam amu ci pexé so kon ken du sika ken bu fekkoon te ñëwoon ñu ne lampa tal taal générateur amul bobu dang naan promoteur be deful lu ko war bobu combat amna amul ko forcé na li nga war ding ko def way bi nak natural causes la natural causes moy li dafa taw so xolé kenn warut a ñàkk ñëpp a promoteur bi dafa ñaaka ñepp a ñaaka amateur sa day dañ ñaaka ñun fédération sax dañ ñaaka soo kon kenn waru ta mun wax nit ne ko dang mo wara a feyaat waaw mo da lu wa am waaw su fekkoon ne tay nak ciobere mbur la wala coobere promoteur wala coobere fédération bu ci gangé mën na am waye nak la jógee ci yalla kenn mënu ci dara waaw. amna solo ñu bëre daal ni ngi jooy na càmbul ba càmbul ba càmbul ba lool lan def ci yow. non lool mom ah nit mom ay nit dinañ la bëgg benen lu bay waye aduna lo gis dafa am commencé am jeextaan eh, bu ñu yalla dimbalé ñu def juroom ñetti at be suñu mandat jeex kon wax dëgg ne yàlla mun nañoo noppaleku mais keneen mu ñew keneen tamit ñew so indi ji halatam ndax moy tax mbir mi def ñun fi ñu am tam ñu ñew yoka kon mom ala alaakuli alin foog mu am bu ma bàyyi wut it bés dina ñew dina bay par force kon bala jax nak su ah liñ mu def nañ ko donte amna luñ déssé sax ba tey waaye ñu bàyyi keneen mu ñew ndax luwaa daf ko tënk ba pare waaw loolu moo ko waral am na solo soo élection bi ban weer lekk na la séntu. Euh, fanaa loolu moom jarut a jarut a wéddi wante ndax képp kuy nekk si amateur yi làmba wala ci lu làmba xam nga li constitution yi wax ne ñeneen juróom ay ñeneenti at laa war a toog soo ñeneenti at yi nag des na dixième 26 si la suma mandat war a waaw kon jeexoon moom wax dëgg ne yàlla loolu moo amatul dara luñ see sikki saaka waaw ren dina séntu euh, national région wala wala dund séntu. lan ci. Euh, région région ak euh, national championship. waaw dëgg ne yàlla su fekkee dañ bañ a wax lu am mu ngi si suñ mébét waaye nag la ko war a def moom lañ amut ndax xaalis bu bari bu takku moo ko war a def kon wax dëgg ne yàlla dañ ko am a ngut moo buñ ko amee def ko waaw. la ngay wax opérative ah. opéra a la. non ñoom moom ca kaw ca kanam rek lañ daan def lañ defati rek di leen ñaanal yokku ba yëg ko rek di la gërëm yaa sa caméraman di leen ñaanal wér ak wérle di ko ñaanal képp kuy amateur yi làmba di leen gërëm bu baax di leen sant Ousmane jërëjëf. am na solo Thiam jërëjëf. jaajëf maa ngi waa baax bu baax. tey loo ko sant yàlla rek sant yàlla bu baax. gannaaw ñu doon ñaan yàlla ñu doon ko si jaama mu jeex si jaama daanaka loolu moo am. grand combat bi mën na ñëw foofu nii alhamdulilah sant yàlla. waxaat nga ko grand combat bi été collègue dinañ bëri te mën naa ne. waaw exactement loolu lañ bëggoon suñ ko foofoon seefit sax dinañ jël parce que nawet lañ nekk te kilifa yi dañ bëri so loolu moo tax ñu bëggoon aali mu teel a jiyee incha allah waaye sant yàlla bu baax a baax daal. allez am na solo su amateur yi ñu ne daal léegi alaaka mos a amatul gars daal ñu ne léegi yaa nekk alburax la nga am ngay wax loolu. waaw waaw yëpp liggéey la rek ba pare ñoom am nga man amateur laa. maa di gërëm si loolu di leen sant rek di leen wane ñu ñaanal ñu rek allah laama ji na nga dem si kaw si kanam incha allah jërëjëf. ok naa fi jànd yoon de. waaw noonu la sant yàlla sant yàlla jërëjëf waaye. lan lay wax télé bi. jërëjëf jërëjëf. am na solo waaw jërëjëf waaye. jaajëf gërëm di leen jaajëf combat la combat bu neex la diggante mag ak xale la te combat la boo xam ne yaakaar naa du yàgg dina am xeex waaye xeex bi du bari ndax Jordan fi mu ne dafa bëgg a ndax daan na ay rakam daan moromam ba dugg ci ay magam Boy Balla tamit amon na retard ci lamb joge ci defet ne xale bu wex la bëgg ku melni Jordan motax combat la bu doy ya bo xamne ne na ne ku xef do gis jël bi way di nga gis lamb ju neex tay ndax bo xolé tay ni stade bi mel nga xamne ñaari xale yi ñom ñoy lamb. amna solo amna solo jaajëf jaajëf. bax bax ñi ngi fay. ma dama la faa. jërëjëf. dama neex. wa si alhamdulilah jërëjëf. tey loo kontaanee nañ pour ñëw ñi dañ tardé na ñi ngi doora a dañ amone ñaari football final waye contane nañ pour ñëw fi trop comme niñ ko dee defee saa yu nekk rek yi fi bëri la yi fi aada la yi fi cosaan la saa yu ñu xewlee bu ñu amee jot dina ñëw fekk ci te loolu lañ ñëw pour bokk ak la promotion ak ñi mu àndal ñëpp pour bés bi. ñu tuddee fulaak bi ala ala Amadou Sané di suñ nit di suñ broda ñu ñëw fekk ci alhamdulilah. jaajëf waa gaan. kenn du yow. waa jërëjëf. waaw loolu dëgg la. bu ñu la bu baax pour ñëwaat. tey. waaye ñi ngi door aksi agsi yaakar na euh, liñ fi fekk jot na rafet na trop té ni ngi ñew nañ comme niñ ko dee yaakaaree organisation bi rafet na waaye ala promotion mom am nañ biram sa yum oté yëpp daf dee régler té kontaan nañ pour ñew gis ne tay tamit oté na té ni ngi gëna ci né ñoo uyu ko comme nu mu waree. ñu tuddee ko El Amadou Sané sa waaw suma broda la suma nit bu baax la ñoo bokk lepp lu ñoo liggéey euh, du yifi professionnel waaye fi family level. te ñuy xelalante si nekk la ñoo xam ne ñu ngi def ñuy jàppalante moo tax moom it bu buñ ko tuddee flag ah, ñun ñëwoon nañoo ñëw fekk si yàlla def na am na gànta bu tax ñëwut waaye ñun ñi nga xam ne ni ñooy liggéey ak moom lii wareef la pour ñun pour ñu ñëw président flag am bi ànd ak ah, mbër yi comme support ah, ñëpp daal. li jafe woon ci làmb loolu nga ñu jox say mooy ministre boo xam ne saay bu ndaw si ndaw yu ootee gis ko. waaw loolu moo war xam nga boo déggee ngi ne ministre yu doon sports. Euh, ba pare nga nekk ndaw ànd ak nit ñi yaakaar nañ ne war nañ laa mën a gis du nekk all the time waaye occasionally nga génn si wax nañ ne suñu xel mu ngi ci yéen te comme ni ma ko dee waxee rek fépp koo xam ne nii mu ngi ci ahlu làmba ñu ñëpp benn lañ ñoo bokk mbir ñoo bokk liggéey te ministre boolewut ñu. yàgg nañoo ànd yàgg nañoo tuddee flag tey bu ñu demee nekk ministre lii rek lañ war a def. xam nga Jordan Boy Balla. xam naa Jordan waaw mos naa ñëw ci kër ga. xam na xaw ma Boy Balla na waaye xam naa Jordan. xam naa ba Jordan. kontaan nañ ci yow. jërëjëf lan ngay lan ngay ñax wàllam. non mooy pour nga gën a farlu rek comme ni nga ko waxee ndaw ñu bari ñooy am liggéey ci lii te yaakaar nañ ne comme lii na dooree ñu continuer noonu lu bari moo ci nekk njëriñ la te du nekk njëriñ comme ni ma ko saa yu nekk nañ njëriñ ci mbëy rek waaye si géwél yi si taxi driver yi si jaaykat yu bëri ci ne soo ñu ngee ooj ñëpp discipline all the time ah, bëgguñ violence bëgguñ dara lépp su yoon gis nañ nguur gi tamit mu ngee bàyyi xel làmba ñu ngee support independence day boolew nañ ci làmba te yaakaar nañ ne at yu nekk dinañ ko def waaye loolu yar ak teggin loolu mooy tax ñu am loolu jërëjëf ànd ak Papa Modi gaa yaa ngi suy rat ndeysaan cey cey làmb tey lamb vraiment ne Ousmane Diop pour fi mun baaxul yaa fa nekk de wax ma ko af ko noo ko wax lii yëpp gaa ko ko doy na waar tey lamb borom ba TV Jordan mi ngi noonu daw ñeen seen gàllaaji mujj di jël Jordan mi ngi wër géew bi Jordan mi ngi wër géew bi mi ngi cey làmb Boy Balla mu ngi foofu di maa la ko wax am na solo neex daal naayin tegal na 24 minutes fii si studio Aladji football field ñu ànd fekk ala promotion lu pa lu bi diggante Boy Balla ak Jordan kenn ku yaa ngi njàpp sori sori sori ah sori sori man cameraman Boy Balla Jordan Rafetli mi nga ba Baol taxawal léegi te arbitre suuf la abe baa ngi wax ak ñaari mbër yi lu làmb nangu ak lu làmb bañ. ñu xool ba xam wanati fa lay ay gëtam abi baa ngi laaj ay siitam waaw mu waaw at bi ba suuf na son Saturday 13 July 2024 Sunu Alaaji football field ñu ànd seeg ala promotion at bi dafa suble ñoom ñaar kenn ku ne toj nañ Boy Balla toj nañ ñëw di wax ak staffam Jordan toj nañ dem naa ndox <laughs> loolu pofton la pofton Boy Balla pofton lay dóor sànni na ko si ginnaaw cey lamb ku daan booy Baalu Jordan laas bu teel li Jordan mun a ana gaay waaw <laughs> mba avertissement du am at bi maa waaw waaw est-ce que Alpha est a xam nañ ko si sax ñoom ñaar xamin li xew sax waaw Ousmane Diop bëgg naa la boy baalu woon wan wan wan wan ñoom ñaar ñoom ñaar kenn ku ne woon avertissement wan wan avertissement woonin ñoom ñaar kenn ku ne am na woonin génn woonin mën naa ne jot na booy Balla kese ma am woon jot ko cancel na euh, woon bi jot na ko waaw cancel na ko attention jot na booy Balla booy Balla jot doon ñaari doo booy Balla jot doon ñuy xeex booy Balla jot doon Boy Baol Jordan boobu daan na attention attention Boy Baol Jordan chef du combat Jordan Boy Baol attention attention Boy Baol Jordan Jordan gëdd na ko muy dox si kawam maa du gaaw seeraaj attention tànk droite ñaari feeraaj Boy Baol la ngay doon baaxut loo xaas la jar Boy Balla loo xaas la jar Boy Balla Jordan ñoom ñaar ñu ngi teg ne tawoon attention Jordan dóor na attention Jordan Boy Balla ñoom ñaar mbokk yi Boy Balla ndeyjoor Jordan càmmooñ man naa ne tegal na tontu une minute fii suñu alaaji Boy Balla Jordan attention. attention boobu al Jordan kan mo ñak songu su songo rek ma bu jeex suñ jàppante ko ma bu jeex combat bi suñ jàppante mu jeex boy baal mu ne tegg do xol Jordan attention boy baal Jordan Joote Mbaye Balla attention ñoom ñaar ñoo bëgg benn tànk mu teg Joote ngeen na Joote ngeen de servation Mbaye Balla mën a teg do xool boy Baali Jordan dajee leen waaye dajee leen soo bu jeex ñaari mbër gox la Jordan sànni na Jordan sànni na Jordan na attention Anta Gueye bëgg lu baax a baax Anta Gueye Ndeye Fatou Tine alliance kooku sama xarale bëgg naa ko ne caam caam ba ba Demba Caam Aziz sama bëgg naa baax a baax grand Babacar grand Tafa bëgg naa leen Seydina Aline Seydina booy baal mem na booy baal dóor Boy Balla doon na attention damante baaraam attention attention Boy Balla attention attention Boy Balla jël na coup KO à l'arrière Boy Balla KO à l'arrière Chebi Komba Chebi Komba Chebi Komba <laughs> Boy Balla jam na Njawara daf Ardo mooy Njawara mooy Ardo français ñoo Ardo Gambie na Njawara Boy Balla jot de mu def gaay dal leen fii moom mu ne deera cey bi combat combat songo mu jeex Seydina cameraman it mbokk yi wax naa leen seen opérative yi Boy Balla am na benn woonin combat bi su jeexee Boy Balla yaay ñàkk Boy Balla yaa war a dox su combat bi jeexee yaay ñàkk ndax am nga ñaari woonin ñaari avertissement Boy Baal Jordan Boy Baal Jordan Boy Baal Jordan maa ne ko tegtal maa ne ko lii maa ne ko ay tegtal maa ne ko ko tegtal den daal Mana ne ko ada xam naa daal doy boy balla muy sa ardo ba njawara jar misi dig jooy bi moom waaw moom ngi waaw ci lamb ku wax xam lamb wax xaar ba dimanche Boy Balla am na tri avertissement tri warning Boy Balla Jordan jege ñoom ñaar jege neen attention jege neen Boy Balla Jordan Jordan Boy Balla Boy Balla ndox si kaw Jordan jàppante neen Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan bëre ba naaw raag ba naaw jaabante ba naaw loolu askan bi wax Boy Balla Jordan ni ngi jegewante attention léegi combat bi jeex Boy Balla Jordan mi ngi accéléré Boy Balla mi ngi Boy Balla doon na kor na Boy Balla Jordan Boy Balla sàng lu waa jërë maye ko Boy Balla Jordan Boy Balla Jordan Boy Balla jotoon jotoon doon na boobu dal na attention Boy Balla jotoon Boy Balla jotoon damante baaraam attention attention Boy Balla Boy Balla jotoon Boy Balla jotoon jàppante nañ dem nañ jàppante nañ ceeb bi Fataw jëm. Boy Balla Jordan. Boy Balla del na ginnaaw di defaraat ngémbal yi. Jordan. Boy Balla. waaw pour lekkante. lii nag mooy kañ maa yow. waaye doom baay. Boy Balla na encaissé jàpp. waaw fi nekk moo ko si génnee jàpp rek moo ko mën a génnee si làmb ji ndax Jordan fi mu taxaw mooy xeex te loolu nañ ko digal booy Balla nag jamono bi ñu toll nii su bëggee sukkandiku si xeex bi du baax si moom parce que booy bi gën na ko jot ay loxo te fi mu nekk ni kawoote na ko kon li nga xam ne jot na ko yóbbu njawar a ñaari yoon is bett nag fi mu nekk dafa mel ne booy bala ci boppam bëtam yi nanguwul mu mën waaye mi ngi mel ne ku bëgg a forcer bëree bi te loolu arrangé wut ko man su ma ko doon digal na dama naan ko ne bu fekkee bët yi nangootul na bàyyi combat bi dem toog génn loolu du gàccee wér-gu-yaram waa bu ko wér-gu-yaram mooy loolu la war a def su fekkente ne nag mun naa mun naa bëree bëree bi na bëree bëree bi benn yoon te mu bëree ko nag jeexee fexe jàpp waaye bu bëggee sukkandiku si xeex xeex bi di ko arrangé nag mi ngi tax ndax dafa bëgg a niilal combat waaw ndax dama xamul ndax dafa ko bëgg si li nga xam ne ne waa mu ngoog pare na dafa mel ne ñëwaat na waa loolu xeeñ na si parce que mu ngi mel ne am na lum sumb léegi nii diggante Boy Balla ak Jordan Boy Balla daggaat na lewtoo bi booy Boy Balla ak Jordan Jordan tekkam googu noonu fi mu ko amoon lay seen nan la ko fay amaatee te bu ko fa dóoraatee rek combat bi jeex man maa la waxli li Boy Boy euh, Jordan fi mu dóoroon noonu non Boy Balla moom Boy Balla lenn rek moo ko mën a arrangé moom mu sës ko rek. sës ko rek jeexal jël tànk yi dugg ko waa jébbalu rek jël ku benn yoon dugg ko booy balla bu jàppee rek combat bi jeex waa booy balla moom bu jàppee rek combat bi jeex waaye ndax dina gaaw a jàppam de ndax booy bi dina ko may. am na solo round d'observation. diggante booy balla ak euh, Jordan ñu ngi si léewtoo bi. waaw fu nekk nii kenn ku ci nekk nday joor la teg waaw waaye ba tey lii yëpp kenn ku si nekk dafa am noo ñëwee rek ak noo gën a mënee booy bala nday joor ku ko xam xamee ko si nday joor waaye joor naa ni ku ko xam it xamee ko si nday joor kon mu mel ne léegi liñ ñu mën a dimbalee mooy jeexal combat bi benn ñi bëree rek parce que force bi jeex na bëree nañ ba force bi jeex booy bala dem na ñaari yoon njawara pour faju ji ndax booy bi kawote na ko waaw fi am na ñetti woonin te lu euh, lu mu di gën a dem rek bu àggee five day ñàkk combat bi waaye ndax booy baale dina nangu woonin jeexal combat bi la moo xew waaw su ma jàngat si combat bi wax dëgg ne yàlla ñaari mbëri buñ simee ko vidéo waaye na combat bi dañ gis si biir ne ki nga xamante ne nii moom mooy Jordan si gàttal ah, moom moo gën a taxaw noonu leen ko mën a jàppee parce que Jordan li mu def mooy dafa parce que soo ko seetloo cëram yi maanaam loxo yi moo gën a gudd ki nga xamante ne moom mooy bu Boy Balla li moo def rek mooy yootu ko am ko si kanam dóor ko moo tax ba loolu gis nga Boy Balla dem si Njawara demaat si Njawara mooy di mooy si medical docteur si nga xamante ne ñoom ñoo fi ne. gannaaw ba loolu amee ba Boy Balla amee ñetti woonin rek booy euh, ki nga xamante ne mooy Jordan liñ gis mooy nangatul jàppante bi Boy Balla nag mun doon bëgg a forcer combat bi mun doon bëgg a forcer combat bi bu baax a baax. waaye ñu gis ne loolu mënut a antu ndax technique ak tactique bu Jordan indi mooy ñoom ñaar buñ jàppante parce que suñ jàppante booy Balla mun na am advantage te already su ko Jordan géré mun na koo jekku si dugal euh, ba gis na ne daal combat bi addi dee noonu la demee donte ne seen ngembay kenn laalut suuf waaye wax dëgg ne yàlla Jordan mérito na li nga xamante ne nii moom mooy ndam bi nga xamante ne moom la am Boy Balla tam nam wax dëgg ne yàlla kenn jéppiwu ko ndax bi mu simee ni mu bëree ak jàppante bi ñu jàppante ba ñoom ñaar ñu mun see génn ci digante mom ak Jordan biñu jappante di nga xamne deug deug dafa indi walé doole tay tay bëri la indi tay abdou amna solo ñu ñu bari ñu ne euh, Jordan dafa jokk Boy Baal ci mystique jingo la nga wala non man gisuma lolu ci mystique adi addi individu parce que ben mystique jógee wut ci biti dóor Boy Baal ci bot wala lenen Jordan nako ko ci bot bët len leen japp adi jàpp addi individu bi foo combat bi di start waxon na la ko mané ñaar ñi ku len xol bu kenn ñew sa di jema tumal ay mystique parce que ñom ñepp nga nekk tous na len wara tous bu duggee ci geegu soté ko nañ sen gàllaaj kenn yegut lenen ñepp nga you know galaaju ba doyal taxaw addi énévidé kon liñ gis ne mooy mystique amu ci li ci am mooy dañ jeeku boy balla ci wàllu dóor bi eh, parce que loxo ki nga xamante ne mooy Jordan moo gën a gudda te afta bu booy bu booy balla génnee am wonin rek Jordan tactique boobu la ëllëg yi ki nga xamante ne mooy Jordan non ëllëg yi Jordan mu laaj ki nga combat la tafaatin daan Jordan daan na ko tey combat la combat la ndax Jordan ndax booy balla ak tafaatin dañ demee wan wan yer waa